asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie duñ topp suñu formation Python Django te dina ñëwaat ci beneen leçon bu am am solo mu nekk euh, mbir boo xamante ni dañ koy soxla du bëree bëri bëri voilà mooy naka la ñuy def ba suñu données yi nga xamante ni moom lañ am ñu daal koy affiché ci suñu template maanaam fii nii ñu am benn page boo xamante ni contact la par exemple bu ñu liggéey fii mu affiché ñu liste contact par exemple wan leen liste yi fu mu nekk pour le moment. Euh, ma dem si admin bi ok euh, faat naa sama user sama username bi ah peut-être bii la wax hmm, ok admin mu ngi nii léegi par exemple benn contact bi ñu am bii nii moy Monas ba ñu naka la def ba afficher que suñu interface bi parce que utilisateur bi visité suñu site wala ñun duñ soxla ñëw ci admin bi pour di ñëw di gis contact bi mais dañ koy afficher ci benn template manam fini ok léegi fii lañ ko bëgg afficher par exemple boo cliquer contact ñu mu daal di ñëw foofu léegi première étape dañuy ñëw si euh, partie manam contact fii ñu dem views ok léegi damay créer waat benn view damay def dev par exemple euh, contact euh, list comme d'habitude nga jox euh, request moy requête http bi da def return render render déjà le premier argument request deuxième argument template voilà template bi bon dañuy créer benn page tout ko benn tem euh, dossier tout d'abord template contact si biir dossier bon ñu am contact liste point html voilà comme ni nga gissé légui fi li ñi passé suñu contexte hmm, ok fi la ñuy passé suñu contexte ok c'est bon légui buñ créer view ba paré dañuy dem ci url yi voilà bo bëggé mu ñëw comme nim gaawé gaawee da ngay def ctrl p voilà mu nek ay commande yo xamante tamit yu am am solo la voilà léegi dañ koy importer fi ba paré contact list mu ngi nii léegi euh, fii nii nga defaat beneen pass nga def pass ok pass bi naka lañ koy tudde euh, mën nañ ko tuddee contact comme ni contact voilà c'est bon view bi contact list ok ñu enregistré day dañuy dem si template maanaam template header bi fi barre navigation bi nekk comme fii accueil bi accueil toujours mën nañ def nii ñu wane ni fii mooy accueil bi bu lee contact dama koy def dama koy bind après naa leen wax naka ngay def ba mu nekk di di dynamique quoi par exemple moom moo koy gisal boppam au lieu ñu koy bind nii à propos dañ koy bindal suñu bopp about ok c'est léegi ñu dem site bi ñu xool ba xam lu mu joxe voilà léegi site bi moo nekk nii. buñ bësee euh, contact voilà dañ naan template does not exist waaw c'est normal léegi ñu dem créer suñ template template fu ñu ko war a créer dossier baa ngi nii dossier contact contact list donc dañuy ñëw fii fii lañuy créer dossier ba pare contacts après ñu créer fichier bi contact list point html voilà léegi bu ñu créé loolu pare ñëwaat fii xool loo am dina ñëw voilà template bi ñëw na léegi ak template vide d' accord donc li ñu njëkk a def toujours mooy extend base point html ok léegi bis topp moo ñu def bloc contenu ñu def bloc contenu bon damay dindi mujj bi ok bon pour wan leen li muy dox wala doxul damay damay def benn class bootstrap rek par exemple uh, div point row dama def h2 takay koy tudde par exemple test ok ñu xol ba am dina ñew wala du ñew voilà test bi ñew na comme niñ ko gissé ok donc damay wàccaat nii uh, bëgg moom ma koy yóbbu fii juste damay def nii pour waaw ah, ba day di ko yóbbu ok c'est bon xaaral ma def fi genre commentaire pour mu bañ a pour na yóbbu texte bi si kaw ok c'est bon léegi léegi euh, lan lañ bëgg mooy dañoo bëgg afficher contact yi fii nii premièrement pour afficher ko foog ñu récupérer ko ci base de bi si Django bu nekké nga bëgg récupérer ay objet yu nekk si base données bi nak ngay def da ngay déclarer ben variable par exemple nga def nga tuddi ko contacts égal à légui da ngay importer modèle zip manam table bi ngay importer mo leen sun table fu nekk table mo nekk ni mi ngi tuddu contact légui dañ koy importer fini nii da nga from that models import contact ok danga def contact point objects point all voilà mooy récupérer ma tous les contacts léegi ñu xool ndax ñëw na war a ñëwul ñu print contact xool lu muy indi ba xam ñëw na war a ñëwul léegi ñu xool léegi ñoo gisandoo gis ngeen ci contact fii nii ci suuf xool leen ci terminal bi contact ñëw na ok léegi ñu affiché ko bon damay supprimer print bi ok léegi fii nii da ngay def no variable bi ngay njëkk a def comme dictionnaire day am clé ak valeur suñu clé toujours mooy clé bi ñu bëgg utiliser ci template bi valeur bi mooy variable bi nga déclaré woon fii ok contact c'est bon léegi am nañ clé ak valeur c'est quoi le problème ok c'est bon léegi ñëw fii ci contact list premièrement comme li nga xam ne dañ koy conseiller toujours moy bu nekké da nga bëgg afficher dara nga la def check nga xol ndax amna exister na wala exister wul pour gagner mémoire aussi léegi damay def ben if léegi damay demande ndax contact yi exister na if contact nga def else and if nga def and if voilà and if voilà comme ni nga gisee ni if contact nga def else def and if parce que if yi if if Django la léegi bu nekkee contact existé na ma ni ko léegi jox ma liste contact yëpp contacts walla ma ni ko nii mu affiché ma ko ma xool lu muy indi c'est bon léegi ñu xool ba xam lu muy indi voilà comme ni nga gisee contact query set contact menace ba parce que yi benn liste lañu retournel mais liste pour afficher élément bu nek ajouter contact hmm. bon Mami Ndiaye ok bon c'est bon Mami tan tan tan tan tan euh, mami at gmail.com auteur bon auteur admin save ok c'est bon il y deux contacts Mami Ndiaye ok c'est bon donc je dama dama bëgg centre élément yëpp classe div md quoi clavier ok aw div point column si si six éléments ma margin auto point m kaa yooyu moom foog mu changé point m auto c'est-à-dire dama koy jox benn margin auto ma def nii léegi damay defaat benn div si biir comme Boursorama am na lu ñu naan xamal leen comme fii bu ñëwee ci ya, documentation bi ok am na lu card card yaa ngi parce que fii dama bëgg utiliser benn carte laa bëgg utiliser pour am lu ma tester carte boo ñëwee parti carte rek da nga gis carte yi parce que ñu nii lañ bëgg afficher suñ poste suñ post yi suñu contact yi léegi dama koy jox damay jox benn carte bi div point carte date carte ok parce que du cours bootstrap moo tax amuma jot di tàppe lépp voilà les contacts dañ ko bëgg euh, euh, afficher ci benn liste kon dañuy def UL bu nekkee Bootstrap am na lu ñu naan liste groupe ñu def ko foofu am na tamit liste groupe flash benn benn lépp ay Bootstrap la quoi ok léegi gis nga mu nekk nii léegi ñu def fii benn li li point liste groupe item c'est-à-dire bi nekk ci liste group bi voilà léegi bu ñu defee lii pare ñun lan lañu bëgg a euh, boucler mooy di li li li rek moo fa répété wu léegi léegi dañuy aj if contact bi ci kaw pour liste bi mën a ñëw léegi else bi uh, mën a nekk tamit fii else uh, bi mën a nekk fii mook and if ok c'est bon ok c'est léegi damay supprimer contact bi fii léegi ñu boucler li bi la ñu boucler ok léegi pour boucler en Django si template yi nag ngay def da ngay def for par exemple jox ko élément bi en bi nga envoyé si template bi bi nga envoyé depuis view bi for contact euh, fii nii fii variable bi bi nga bi war a afficher léegi moom ngay def fii nii in nga jox ko fii nag contact bu bi nga envoyé si depuis le template léegi if foo bi tam da nga koy tëj sinon day indi erreur. and for voilà léegi tëj naa for bi léegi lan lañ bëgg afficher ci contact bi nom bi prénom affaire yooyu noonu léegi bu njëkk bi dañuy afficher nom bi dangay def contact point eh, ana suñ suñ kii bi parce que fii ngay xool mooy nom gis nga léegi ñu def loolu point nom point nom buñ paree si boobu lan lañ bëgg afficher waat ok c'est mën nañu archival prénom bi aussi kanamam euh, contact contact point prénom ok c'est bon léegi ñu xool lu muy indi ok ndax dina am affiché voilà gis nga premièrement mooy indil nañu première mooy Ba andil nañu tamit Mami Ndiaye moy ñaari contact yi nga xamanteni ni lañ am si template yi yaakaar naa comprendre ngeen bu baax si else fii mën nga def benn par exemple variable nga def contact vide benn kii texte nga def contact vide ok maa ok c'est bon yaakaar naa comprendre ngeen ñuy afficher ay données dynamiques si template bi voilà mbokk doon seen Xarala Academy ñu leen sant di leen gërëm ba beneen yoon ci beneen tutorial.